الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di dalal ci keppaaru Ramadan tey jii muy suñu fukkeelu daje ak juróom-ñaar su l'ombre du Ramadan muy tombeeg fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar chehru Ramadan fan yi passé yépp ñu ngi waxtaan ak yéen lu aju ci wàllu pas-pas bañ ca jógee ñuy waxtaan ak yéen lu aju ci wàllu ay ñaan tey jii nag ñu ngi fës yéeni waxtaan ak yéen ci fàttaliku benn ci xéewali borom bi jalla waala bokk suñu borom moo ne wallahu xalaqa lakum wallahu xalaqa lakum zilalan wallahu jaala lakum mimma xalaqa zilalan lépp la nga xam ne nii yàlla moo ko bind boole na ci mu may ñu la nga xam ne mooy ay ker wa jaala lakum min aljibaali aknaana may leen ca montagne yit fu ngeen di mën a làqu dafa kerloo ker googu moom la ñu duppee suñu waxtaan bi tudde ko ci suufu keru la nga xam ne mooy Ramadan loolu nag danañu fàttali kër ga nga xam ne muy ñëw yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu nittali ne allaaxira bii ñu jëm suñu boroom dafay génne jaam yi su leen génnee ñoom ñépp dañuy def yaramu neen ñoom ñépp dañuy def tànku neen suñu borom yàlla dana leen bàyyi ci xaal boobu ba ba yàlla di ko soob mu commencé nag di waddu ay jaamam kami jëkk a wadd mooy ibrahim mi bàyyi yonent yi wadd suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam wadd yonent yi doog a wadd ñu baax ñi yàlla nañu yàlla boole ci ñami wadd taxawaay ba di taxawaay bis pénc taxawaay bu metti lool suñu borom bàyyi nit ñi ronkali ko der lii di ñaq ya di siit ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni am na ci ñoo xam ne dana dem ba seeni chibi seeni dojar da ci xuus am ñoo xam ne ñaq bi day dem ba seen óom am ñu ñëw seen dëgg am ñoo xam ne dana dem ba seeni tuñ loolu borom xam-xam yi dañ koy firi te suñu bor borom di wax naan wujuhun yawma idin alayha ghabar mooy keroog dana gis kan yoo xam kanam yoo xam ni pënd baag poussière ba ndox ma yëkkati ñaq ma yëkkati dem na ba muur seen kanam ya ba kenn du ko gisati mbokk yeneen ci bàyyi salaam moo ñu bégal ne yàlla dana jël ci ay jaamam juróom-ñaari façon ñu jaaroon ci ngërëmam indil leen ci ker gu muy jële ci arsh ker googee keral leen en attendant yàlla di atte ay jaamam ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala nim ñu dajalee suñu keppaaru ramadan gi yàlla dajale ñu ci melokaan yooyu nga xam ne ëllëg ci si biir dana tax malaaka yi séppi ñu ci mbooloo mi yóbbu ñu ca keppaaru suufu arsh muy su l'ombre de harsh rahman ñoo ñu kate suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam jëkk a tudd mooy imaamun aadil njiit boo xam ni dafa maandu ca ñun jiite ñooñu nag imaam buñ ko waxee kiñ ciy jëkk a joxoñ mooy ki jiite la nga xam ne mooy état bi yépp mooy responsable bi gën a mag gis ngeen imam bi jiite suñu réew bi mu décidé ne à partir de vingt heures bu kenn génneti da ngay gis boo génnoon vingt heures ñépp ne selaw mu décidé ni bu kenn dem ci marché yi ca takkoo masque gis nañu réaction bi kon kooku am na pouvoir ci peuple loolu nag moo tax islam sant ko na ci maamu noonu lay wàccee ba képp ku ñuy tuddi imam dana jaar ci imaamu jàkka ja dana jaarit ci képp koo xam ne nii dangaa jiite mbooloo ba mën na caa dugg sax ka nga xam ne yàlla may na ko famille mu yor fay doom yor fay njaboot mu maandu seen diggante moom la yonente bi alei salaam doon wax naan ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum sant ñit ñu maandu ci soxna yi mbokk kon maandu tege boobu nga xam ne suñu borom nee na inna allaha yuhibbul muqsitin yàlla daa bëgg ñu maandu yonente bi alei salaam détaillé na ko ci beneen xadis ne ñooñu nga xam ne al muqsitun yàlla dana leen keral ci ker goo xam ne yonent yi sax daan leen ñee ngir seen jëf yi nam néewee ak teraanga yi nam xewee loolu kon ñu jàpp ko mooy jukkoom maandu tey soo bëggee bokk ci ñi nga xam ne ëllëg ci biir dañ leen di keral ci keru arshur rahman ñaareelu façon mbooloo bi malaaka yi di génne moom mooy wa shaabun nashaa fi ibadati rabbi ndaw loo xam ne ci jeunesse am la màggee ci jaamu yàlla jalla wa ala te loolu itamit mbokk julit doon xéewal yi gën a rëy ci xéewal yi mooy nga nekk ndaw yàlla bëgg loolu diine ngay dund diine ba màggataale loolu mbokk jaamu yàlla nam gën a jafee noonu la ko yàlla gën a bëggee masalan tey jii ki nga xam ni dafa yeewu xaaju guddi di naafila naafila googu la yàlla gën a bëgg ndax moo gën a jafe naka noonu it mag muy jaamu yàlla moom xaw nañoo wax ne c'est naturel waaye li yii mi mooy ndaw li nga xam ne li koy xëcc ci bànneex kenn xamul nu mu toll bànneex yooyu yépp mu résister wan ko gannaaw ba sax ci lu neex yàlla loolu mbokk lu rëy la looloo tax nga la waay ñu ngi ñaan bépp ndaw ba toll ci jeunesse am nay def toujours la nga xam ne mooy comparaison ci bànneexu adduna yi nga xam ne naam fu mu dem ñu ubbil ko ko waaye na koy comparer ak ngërëmal boroomam ak teraange àllaaxira soo ko comparer da ngay xam ne lu benn looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmbaari góor yi ñuy tudd seen tur ñépp soo xoolee ay jeunes lañu woon jamono bi ñuy ànd ak moom ñu ngi noonu ki mujj a jox drapeau muy Usaama Usaama boobu presque ci vingt ans la tolloon Musab ibnu Umayr ba mu ko yónni ambassadeur presque ci ca Madina presque ci vingt ans la tolloon mu yoroon drapeau keroog yow ma Uhud ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolee kon nga nekk ndaw jàpp ne mag ñi ñu war a jaamu yàlla erreur mënul passé loolu yow mi nekk ndaw da ngaa war a fas yéenee en romb la nga xamee ni nii mooy mag ñi xool sa baay li muy naafi la nga def lu duubul loolee ci la muy jàngal xuraan nga def lu duubul ndax énergie bi yàlla def ci yow defu ko ci moom loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk julit ñaareelu mbooloo bi suñuy borom di sant malaaka yi ñu génne leen mooy wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid góor goo xam ne xolam mi ngi wékku ca jàkka ya yal na yàlla fayal ñu suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci jottali boobu ndax kat mbokk julit su doon yonent bi dani góor ñi nga xam ne ñoo sax ca jàkka ya kon ku dem ba mënatoo dem jàkka dana doon lu diis ci yow lool waaye suñu unité dani ñi nga xam ne seen xol daa aju ca jàkka ya xoolal jamono ji ñuy dund tey jii man mii di wax ak yéen léegi mu jóge deux mois yoo xam ne teguma sama tànk ci jàkka ci loo xam ne yow ci jàkka nga juddoo ca nga yaroo ca nga màgge loolu mu lay wan suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bokk na la ñuy gën a xool ci jaam yi mooy seeni xol avant muy xool seeni jëf xol yooyu nag képp koo xam ni yow nitu jàkka nga woon tey gàllankoor am na ba mënoo faa dem ngalawaay dalalal sa xol jamono bii ñu bëri ñu ngi doon waajal i'tikaaf jamono yi ñu bëri ñu ngi doon waajal qiyaamul layl jamono bii ñu bëri ñu ngi doon daje ci tafsir yi waaye ngalawaay bégal inna allaha la yudiu ajral muhsinin yàlla du neenal jëfi aji jëf suñu borom yàlla léeg-léeg ay jaamam mën na leen a sant ay jaamu jaamu yooyu démb mu di nekk bànneexu xol ba bànneexu xol boobee mën leen a fàtteloo aspect jébbalul yàlla bi toroxlul yàlla bi dem nañ ba mbokk xiyaamu layli neexoon ci ñun lool la nga xam ni mooy daje ci tafsir yi yooyu neexoon ci ñun lool suñu borom nag ne xaaral ma nattu sama jaam yi indil leen loo xam ne lu metti la ba xam ne ñu réagir yàlla dox suñu diggante ak jàkka yi dox suñu diggante ak tarawih yi te jàkka ya dox suñu diggante ak xutba jumaa yi daan am ci imaam ya léegi nag mbokk loolu la nga xam ne moom nga ciy am ci tiisu xol boobee loolee mbokk mooy yokk say dara di ci borom bi jalla wa ala ba ñu ngi ref seen njort ne li ñu yàlla ma yoon koorug daaw ci tuyaaba tey mu dox suñu digganteeg jàkk yi jullit ñi ànd ak tiis ak rëccu ak am métit jàpp nañ suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxuma danañu fay lam ñu daan fay waaye danañu fay sax plus loo xam ne doon na ko doon fay loolu la ñuy jort ci moom jalla wa ala mbokk ka nga xam ne mooy ñeenteel bi mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa axfaaha xatta la taalamu shimaaluhu ma tunfiqu yamina yaminu mooy koo xam ni dafa génn sarax waaye sarax bi da koo nëbb ba càmmooñam xamul lu ndey jooram saraxe te loolu itamit mbokk yenent bi da ci wenoon wone rek ne lam def jabar yëgul doom yëgul xarit yëgul mi ngi yem ci diggante kam ko defal ca mbokk rawatina bu dee faqiir ngay jëflanteel sunu borom mu ne in tubdu sadaqaati fa ni'maa hiya su ngeen wonee seen sarax loolu baax na ndax feeñal sarax dana encouragé ñeneen waaye mu ne wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqara fa huwa xayrun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna xabir waaye nag sarax bi bu dee nii da ngeen koo jël moom nëbb ko faqiir bi nga xam ne personnalité bëggul ko ko offensé nga wéyteeg moom nànk jox ko ko ci sutura suñu borom nee na day sarax bi moo gën moo ëpp lu muy far ci say bakkaar borom bi yàlla nag su soxna xamul doom xamul moom dara ump ko loolu mbokk jullit ku nekk ci ñun war nay bàyyi xel loolu góor ak jigéen di jël say yére di jox ñu aajowoo kenn yëgul jël sa alal jox ñu aajowoo kenn yëgul lépp loo xam ne nii jëriñ la bu doomu aadama mën a jëriñoo nga jël ko jox ko ay faqiir te kenn yëgul mbokk loolu ci tuyaaba yi gën a màgg ci tuyaaba yooyee ca la bokk rawatina jamonoy koor gi nga xam ni nit ñi ñépp ñi ngi yaakaar ay ndimbal su seen loxo jotul gannaaw la ngay yëkkati di ko jox faqiir ya wala sax di ko jaarale ci koo wóolu nga xam ne faqiir yi du ñu xam sax xaalis bi fan la jógee yow nga jox leen ko ci yàlla tax loolu day tax ba yawmal qiyaama suñu borom yàlla sant malaaka yi ñu woola génne la ci tartar jafe-jafe bis pénc dalal la ca la nga xam ni mooy ker googee nga xam ne tey sunu maam yi ku leen dékkaloon wax leen luy climatiseur xam ñu luy climatiseur tey ñun ñu ngi koy dund sunu sëg yi liñ nar a xam ñun xamuñu ko kon it ker gay ñëw ci ca suufu arche ker googee na muy nar a mel tur wi rek a fi nekk daañ ko tuddee ker waaye xam leen ne sori na lool ak suñu keppaaru ramadan gii ñu nekk tey mbokk loolu mooy ñeenteel bi amma bu ñu delloo ci juróomeel bi juróomeel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom mooy góor goo xam ne daa toog ci wéetaay di xalaat digganteem ak boroomam di xalaat gàttoñ leem ci jaamu yàlla xalaat bàkkaar yi ko yàlla jàll na toog waaye di xalaat ëllëg su ma deeyee wàcc bàmmeel naka lay demee suñ ma génni ci bàmmeel di ma xisaab xisaab boobu ndax man liggéey naa ci yàlla lu jar mu jéggal ma musal ma ci sawara ba tàbbal ma aljanna loolee fees xolom ba bëgg ya turrangoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii moom ku ko mas a def ci sa dund daañ la woo keral la ci keru arshi ba loolu nag moo tax ba bokk jurit nañuy bari di wéet suñu diggante ak suñu boroom am na benn vidéo bu am solo bu ma gis xale yi di ko tasaare seen biir mooy vidéo boobu ñu tuddee isole-toi naam isole-toi pour ma toppal rek la nga xam ni moom mooy portable yi télévision yi nga xam ne da ngay consommer toute la journée consommer consommer consommer bal góorgóorlu sa kemtalal kattan bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy en toog di xalaat di génne la nga xam ne moo nekk ci seen biir di xalaat di génne la nga xam ne moo nekk ci seen biir ba ba ëllëg ci si biir ah yàlla may la xol bu dunda xol bu tooyaat ba nga méritoo mën a bokk ci ñi nga xamee ne ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana leen keral te la nga xam ne ni mooy keru suufu arshu rahman boobi mbokk bu ñu delloo ci la nga xamee ne ni moom mooy a juróom benneelu melokaan bi suñu borom subhanahu wa taala di wax malaaka yi dem leen ci mbooloo mi ngeen génne leen indi leen ci teru arsh mbokk melokaan boobee mooy ñan mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy wa rajulun da'ahu imra'atun zaati mansabin wa jamal fa qaal da'ahu imra'atun zaati mansabin wa jamal fa qaal inni axaafu allah mooy bépp ndaw bu yàlla masa nattu benn jigéen bu taaru bokk ci famille bu baax dafa ñëw daa di lay en proposé la nga xamee ni nii moom mooy ak njaaloo nga ne ko déedéet man dama ragal yàlla ay yéen mbokk bàyyi leen xel loolu la nga xamee ni nii mooy soxna soo xam ne daa ñëw fu kenn nekkul yéen ñaar kese soxna si taaru lool bokk ci famille bu mag lool nga xam ne boo ko rusloo dana kawe lool waaye ñetti mbir yi yépp teewul bim la woo jëmi ci njaaloo nga ne ko ah déedéet man day dëgg-dëgg dama ragal yàlla loolu mbokk am na ku ñuy tuddee Muhammad ibn Muhammad al Muxtaar al Shinqiti bokk ci borom xam-xam yi gën a màgg tey ca Arabie Saoudite am na xista bu muy nettali ci benn jeune boo xam ne nii dafa jóge woon côté Soudan mu dem Égypte ca Azhar di jàng bi muy dem di jàng am fi nga xam ne fa la luye dëkk fa mi ngi dëkk ak benn xale bu jigéen bu taaru xale bu jigéen bi benn guddi mu bàyyi ba seen waa kër gépp tëdd mu rocceeku def ni xale yu jigéen ñi tey di def ñëw rek fëgg waaj waaju ubbi mu ñëw rek dugg ci néeg bi daal di summeeku ne ko tey daal yow rek yaa ma indi ba ma la gisee ba tey ànduma ak sama sago yow rek yaa ma indi waa ji fekk mi ngi taaloon benn ah lampe di réviser ay kuuram bu xool ndaw si wëlbati ko waat jël ci lampe bi takk teg ci baaraam bi muy lakk lakk muy jooy turrangoon turrangoon turrangoon ne ay bakkan bakkan munu muñ lii munu muñ lii munu muñ lii bàyyi ndaw si toogaat waaw lii bul def li nanga bu xoolati ndaw si rek tegaat baaraam bi mu lakk lakk lakk mu jooy jooy munu muñ lii munu muñ lii ndaw si daal di tiit génn daal di dem bi mu demee ñëw ci papaam ci suba ga mu ne ko papa mu ne mu ne ko dëgg-dëgg li ma lay wax démb sama bakkan man na ma ba suñu dëkkandoo bi dem naa ci moom pour jox ko sama bopp mu daal di def li nga xam ne moom la def papa maa ngi lay ñaan ci yàlla bugguma sëyal benn góor ci àdduna lu dul lu dul kii ndax ragal yàlla ak ni mu mel ah papa ji woolu ko mu ñëw mu ne ko ndax bëgg nga ma may la sama doom ji mu ne ko ah bu dee sëy kay bëgg naa ko papa ji woote may ko ko mu dem nekk soxnaam mbokk xoolal lii li tax ma la koy wax yow jeune yàlla mën na la nattoo benn xale bu jigéen bu taaru lool bu am situation lool mu daal di lay proposé ak njaaloo ngal la waay wan ko gannaaw ci yàlla tax ci nga bég bala ngay dee fokk yàlla subhanahu wa taala fayee la koo xam ne nii moo ko gën fuuf mu dagan ci moom waaye bu dee defoo loolu fokk nattub yàlla dana ma sa dal ci sa kaw loolu yi ñu bàyyi ci xel bu baax te ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ak a raaroon ci jamono yu jëkk ya waaye ak a yomb tey ci jamono yi tey boo xoolee cent couple yuy ànd ci caaxaan quatre-vingt-dix pour cent ya soxna si moo fekki ku góor ko néew na ak situation yi ñuy dunde léegi xale bu góor boo xam ne da ngay dem ci ku jigéen di ko fekki loolu it ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee loolu moom mooy juróom benneelu melokaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala nara terale la nga xam ne mooy teral leen ci kër ga muy génne ci arsh daal di fay keral ay jaamam suñu delloo ci juróom ñaareel bi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax mu ne wa rajulan tahabba fillah ijtamaha alayhi wa tafarraqa alayhi mooy ñaari góor ñoo xam ne dañoo bëggante ca yàlla rek moo tax di seetante di dimbilente di toogante ca yàlla dong moo lal seen relation boobee ci loolu la nekk ba bi ñuy teqilikoo ci àdduna kenn di dee bàyyi moroomam relation boobu mi ngi continue di sax te yàlla tax ñu mel nii yàlla da leen di keral te su këru arsh ba loolu it mbokk jullit rawatina yow jeune xoolal kan ngay àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne al mar'u ala diini xalilihi falyanzur ahadukum falyanzur ahadukum man yu xaalil ku nekk ci yéen na xool kan lay àndal ngal la waay booy àndal bul ànd ak lu dul ko ragal yàlla ànd ak ko ragal yàlla day mën na am intérêt adduna gisoo ko ci yow mi tamit mën na am sax yow yaay kay jox waaye nag xamal ne lam lay jural ak loo ko ëpp ëpp situation ëpp ko ëpp am njàng waaye ngay ànd ak moom rek ci yàlla tax loolee mbokk lam lay jural yowmal qiyaama moo gënoon nga am beneen àndandoo boo xam ne weer wu dee mu jox la un million ubbil la këram ubbil la ay katkaatam loolu mu jëriñ la ko ci àdduna kii nga àndal si yàlla tax loolu mooy li gën su ko defee ku nekk ci ñun bàyyi ko xel soo amee xarit bu ragal yàlla jàpp ko ci yàlla tax moytul aussi bépp relation boo xam ne intérêt adduna kese kese kese moo ko lal rawatina boo xam ni dalay fàtteloo sa borom koo xam ne boo toogee moom une heure deux heures de temps sport voyage commerce jigéen yooyu rek ngeen di waxtaane doo dégg mu ko xaala la xaala rasulullah mbokk kii ànd ak moom pertement la toog ak moom pertement la loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax lii ma leen wax yépp it nañu xam ne dafay valable ci góor valable ci jigéen ca moo di ne nii jigéen itamit suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ko bëggloo la nga xam ne moom mooy jàkka jigéen yu yenente sahaaba ya dañ daan dem ca jàkka ja fay la alhamdu ñu ngi sant yàlla suñu jàkka ji ñun bala ñu koy tëj bokk na ci jàkka yi nga xam ne jigéen ñi dañu fi doon julli waxtu juróom di fi dajee ay fan ci semaine bu nekk di nafar seen diine loolee itamit dañuy gis la valable ci góor mooy la valable ci jigéen la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci ndaw luy jaamu yàlla loolu moom leer na ba chaque ni ndaw góor ak jigéen ñëpp war a yem ci jaamu yàlla ba yàllay tagg Mariama kullama daxala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa heure bu Zakaria duggee ci jàkka ji fekk Mariama ngi toog yàlla jox koy wërsëg booba Mariama mi ngi tourné entre treize ans quinze ans kon loolu ñoo xam ne ba ñuy wax ndaw ñu ngi ci jublu góor ak jigéen la nga xamee ni nii moom mooy sarax sarax ba nañ ko sante góor ñi noonu nañ ko sante jigéen bal jigéen a war a gën a saraxe ko góor yonent bi alayhi salaam moo ko wax nee na dama xool sawara yàlla won ma ko la ëpp biir sawara ay jigéen lañu mi ngi noonu la ëpp biir sawara ay jigéen lañu am benn jigéen bu jëkk ne ko waaw yu mu yàlla yéen lu waral loolu mu ne yéen da ngeen a bari di wax lu ñaaw ci seeni làmmiñ di rëbbaate te da ngeen a bari suul njëkk da ngeen ñi nekkal seeni borom kër ay ati at lu ne mu defal leen ko gis ngeen mel rek na ko musoomaa deful dara tekki woo dara mu ne loolu moo tax ngeen bari sawara maa ngi leen di dénk ngeen bari di génn ay sarax loolee kon mbokk jigéen dafa war a bàyyi xel loolu bisu it la ko waxoon jigéen ñi ñu ne keroog jigéen ñi fi ñu toog ñiy tekki seeni lam ñi tekki seeni jaaro di sànni ci mbubu bi daal ci place boobu ñu toog avant ñu dem kër ga xool lu ñu saraxe loolu ñu bàyyi ci xel bu baax li ma wax ci góor gu wér di jaaw di di di di di jooy ci yàlla tax jàpp naa booy topp waxtaanu ramadan maa ngi lay netti lii ah Urwa ibnu Zubayr keroog bu mu ñëwee ca tantam ji yooyu Aïcha am lu mu ko soxlaa lool bi mu ñëwee ci néeg bi dégg ko muy jàng aay bi suñu borom di wax wa waqaana azaba samuum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim mooy waa aljanna fa nekk ci àjjana naan yàlla day moo ñu baaxee musul ñu ci mbugalum samuum muy mbugal bu tar bu nekk ci biir sawara ñun day moom rek lañ doon woo moom mooy kii laa biir ki am yërmaande orwa nee na ma taxaw gis ko muy jàng di jooy ba taxawaay bi yàgg ma ne xaaral ma dem marché ci ñëw dem marché ñëwaat ñëw fekk ko ci aaya bi mu nekkoon passé wu ko di jooy kon it loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax góor gu wiit di xalaat ci yàlla di jooy wala di jàng alquran di jooy loolu lañ la ñuy wax ci bépp jigéen boo xam ne toog nga di xalaat ci yàlla di jooy wala di jàng alquran di jooy li yonent bi alayhi salaam wax ci góor gu jigéen woo ci caaxaan mbokk loolu it lañuy wax ci bépp góor jigéen boo xam ne góor gu taaru bokk ci famille bu baax ci wéetaay bu kenn nekkul woo na la ci ak njaaloo nga ne ko mën damaa ragal yàlla ay dara taxul nga gàntal ko lu dul ragal yàlla lu dul da nga bokk ca la nga xamee ni nii moom mooy ni ñuy keral ci suufu ker ga yàlla subhanahu wa taala di génne yowmal qiyaama loolu ma la waxit laa la wax ci bëggante gi ñaari góor ñu bëggante ci yàlla tax loolu it mooy le valable ci ñaari jigéen ñu bëggante ci yàlla tax gala waaye soxna si fexeel xool sa kon ka nga xam ne nii yàlla rek a tax say mbokk say relation xool ci koo xam ne ku ragal yàlla la nga jege ko bari looy toog ak moom bari loo koy téléphoné ngeen di diisonte di tudd yàlla di sant yàlla mbokk xarit boobu moo gën li xew suñu jamonoy tey sama xaritu ministre bi sama xaritu magistrat bi sama xaritu DG bi kaza wa kaza loolu adduna la yem xarit bi nga xam ne mooy xarit dëgg-dëgg mooy ki ngay àndal ci yàlla tax bi ngay dund mi ngi lay ñaanal di la conseil lu baax bis boo dee du la fàtte fu mu toll mi ngi lay ñaanal mu safaanoo ki nga xam ne xaritooga moom ci adduna la yem bis boo dee woon ko gannaaw pare na ci yow seeti keneen nituk adduna ko mën a àndal lii mbokk kon dañuy gis ni moom mooy juróom-ñaari melokaan yooyu nga xam ne suñu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ko te mooy njiit boo xam ne ba maandu la ndaw loo xam ne ma nga sosub ndawam ci jaamu yàlla góor goo xam ne xolam ma nga aju ca jàkka ja koo xam ne ma ngay sarxe ca la muy sarxe moom dong moo ko xam kay tudd yàlla ci wéetaay digganteem ak boroomam ka nga xam ne moroomam da ko woo ci njaaloo moo gàntal ko te yàlla doo nga tax ak ña nga xam ne dañoo bëggante te yàlla doo nga tax ñoo ñii dañuy bokk ci ñuy teral ñun ñi yàlla boole suñu keppaaru ramadan gi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf di ko suivre di ko topp yàlla ci mbaaxam ak yërmande melokaan yooyu yàlla na ko def ci ñun ba ëllëg ci sibir ñu yeyoo toog ca keppaaru arsh ga di fàttaliku keppaaru ramadan gi nga xam ne nii moom lañ doon dund ci la nga xamee ne mooy suñu atum ren te ñaan yàlla subhanahu wa taala yëpp li waral keppaar gi yéen ñëpp xam ngeen ko te mooy mbas mi yàlla wàcce ci kaw suuf yàlla na ko yàlla yëkkati ci njéggalam ak yërmandeem mboolem jullit yi ca faatu yàlla na yàlla defal leen àjjana yi firdaws mi seen wàccuwaay mboolem ñi ci tëdd ci feebar yàlla na yàlla far ci seeni bàkkaar yëkkati seen daraja te delloo leen seen wér gi yaram mboolem jullit yi nga xam ne dara gu leen woon yàlla na yàlla fegal leen ko yàlla defal ñu ërafiye fi dunya wal axira mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh